ñu war a dem euh, maanaam am na joueurs yoo xam ne dañuy bëgg a dem seen club yi du ñu bëgg a ñuy ñuy ñuy dem donc xëccoo am seen biir mais yaakaar naa ni que tey euh, pratiquement 26 jours yu ma jël yëpp xëy na kenn wala ñaari joueurs ñoo ci am problème yooyu di ci sant yàlla bu baax a baax je pense que dinañu ñëw ci forme bu baax forme mentale ak forme ak forme forme physique. Euh, stade Léopold Sédar Senghor gis ngeen pelouse bi nu mu meloon euh, mois de juin bi. Euh, mu nekkoon loo xam ne lu lu métti la foog naa tamit bokk na ci loo xam ne moo tax ba xëy na euh, football bu ñu na doon joué football lu ñu ko noonu mais je crois que tey muy équipe bu nekk foofu noonu euh, stade Léopold dem naa fa plusieurs fois waxtaan ak ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour que justement pelouse bi mu mën a nekk ci condition bu baax gëm naa ni que football mënuñu ko joué suñu amul pelouse bu baax mais yaakaar naa ni que fii deux semaines.

mais y a ni que football en tout cas m'a gagné ci élection donc euh, j'espère que dans l'avenir les choses se passeront tamit euh, de la même façon donc euh, les féliciter féliciter Senghor bien sûr féliciter aussi Baï, félicité féliciter tamit Lamar bu non je crois que l'olou xew Burkina loo xam ne la lu lu doy waar la euh, di di jaale vraiment dëkk boobu muy Burkina di jaale tamit parce que dëgg naa tamit ni que am nañ ci suñu benn compatriote pandamit bu fa bu fa faat moo ko moo ko soxnaam euh, loo xam ne la lu lu doy la euh, ci si mais comme je crois que nous euh, euh, waruñu arrêté ci je crois que dañu continuer di di ni que malgré lolu ken mënuñu que spectacle bi continuer nit tamit continuer di donc je pense que euh, dem Burkina dem jouer fa lolou amuñu fa ben ben sikki sàkk amuñu fa ben ben ragal amuñu fa benn tiitange parce que dëkk bo xamné le la dëkk bu am euh, sécurité la hôtel buñu nek nekk tamit euh, nek hôtel bo xamné hôtel bu am sécurité la mais yoyu comme nu ma len ko waxé day am fu nek ci dëkk yi di ñaan yalla vraiment yalla yalla may ñu jamm waaw yàlla yàlla defal ñu jamm ci réew mi waaw parce que jamm fu mu amul rek je pense que wërsëg du fa dugg kon yal nañu yàlla defal jàmm Merci beaucoup.